Hello, c'est Chabi. Retrouvez-moi sur Vibe TV. Hello guys, man le Sir Mohamed. Retrouvez-moi sur Vibe TV. Salut tout le monde, c'est Nabou. Retrouvez-moi sur Vibe TV. Donc, Dylan Warne, boo bouge bëggee gis lu bees gis lu graaw ci chat bi xaar ko ci saison 3 bi boo leen ko tardé rek raté donc suñu ñent bu dajé. Sir, je dirais que c'est un personnage atypique parce que personnage Sir day varier souvent Sir benn waay la bo xamné ne que xamul fu muy situé sur le plan sentimental. nan la wax kuy sa baay te mu génn sama diggante ak yow moo ëpp solo. bon nabouf rôle bi muy incarné je peux dire que Ben rôle bo boo bu xaw a doy waar allumeuse la fofu en même temps. <laughs> maay def lépp dal. waaw changement de look bi tamit euh, ci série bi la c'est pour la saison 3 moo tax ma la doon wax ci ben que ni boo leen tardé saison 3 pour démarrer Marichou bi non nañ len da ngeen di gañu rek mujjé len gañu dal. <laughs> d'un autre côté aussi ñi ngi wone dans la vie professionnelle ñi ngi développé un thème grave à savoir le fait que Sir yoon prêt-à-porter il s'est fait il s'est fait arnaquer par gars yo xamné ay conteneur nañ ko gëmloo woon ne que nañ ko ainsi de suite woné la réalité au fait lu ñuy dund quotidiennement dans la vraie vie. j'invite tout le monde fans team Pod des Marichou yépp fo leen mënti nek ci Sénégal ci Afrique ci fépp fo leen mënti nek ñew leen ci lancement bi parce que dina nek lo xamante c'est un truc spécial juste pour les fans. ñu wax internet yi ñu ñew soutenir Podemarichou Marichou pour lancement la saison 3 bi ça sera au Magic Land si salle de cinéma bi. lancement de la série Podemarichou Marichou. saison 3 le 8. Marichou. au Magic Land. Le nouveau son.